j'ai trop mal am naa trop lu ma naqari. Mhm. wallaahi azim j'ai pas voulu la vidéo mais sama xool moo jeex parce que lii àdduna dara jaru ko. arène nationale xam nañ fi sama oto di gaare kuy dugg arène national xam nga fi sama oto di gaare sama oto lañ fekk fi mu taxaw gis nga ñu toj sama pare-brise arrière. am nañ ci jot. toj nañ sama pare-brise arrière sama caméra bi may liggéeyee bantamba man naa ko moom. Uh-huh. caméra bi may bantamba man naa ko moom micro bi may waxee bantamba man naa ko moom. sama caméra sama micro dañ na si te am na loo xamante ni waru am fi àdduna la dalal jarul lu ñaaw jarul jarul yenn yi nañu xoolaat am na loo xamante ne ñu ngi koy def bu ñu fayontee mën na ñaaw lii lan moo ko jar ci àdduna toj pour lan boo yëgatee affaire yi day commencé tojaat awla yàlla baax na ki ko def nag yàlla na ma yàlla ate ak moom yàlla baax na